salaamaaleykum wa rahmatullaahi wa barakaatu mbokk jullit yi fi daje yëpp ñu ngi leen di nuyu nuyu gën a tëdd ci mboolem nuyoo yi muy nuyoo islam ne asalaamaaleykum wa rahmatullaahi taala wa di yëkkati sunu kàddu di ko jëmee ci li nga xam ne moom ñu tax a fii muy loo xam ne nag ak jaamu yàlla ñenn gën a siiw ci tabaski tabaski nag euh, dañuy wax ne euh, lu sunu borom yoonaloon la ci sunu maam tàmbalee ci moom. loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñëwee gën koo feddali moom nag ñu bari tur wi lañ gën a xam ci melo bi tabaski aw tur la waaye dafa am aw melo melo bi nag mooy comme niñ koy defee nii rek it sun borom tudd ci alxuraan mu julli ci ak tudd ci yàlla alxuraan boo demee ci suratu sabbihi rabbika al a'la sun borom day wax ne wa zakkara isma rabbihi fa sallaa lu mel noonu bi ñuy tuddu mbirum asaka di ci tektalo ci alquran dañu tuddu qad aflaha man tasaka sun borom di wax ne ki genn ki joxe asaka mom sun borom da koy def mu taxé way di ta tek ne wa zakara sma rabbihi fa salla moy tuddu ci yàlla danañ ko jamtal jëme ko ci julli danañ ko jamtal jëme ko ci alquran danañ ko jamtal jëme ko ci aw tur tur ci aw turam ci benn ci turam yi beneen bi mooy julli bi julli bi mooy melo yi ma doon wax ne tur woo gis dafa am melo melo tabaski yi ci gën a nox bu ñu nee tabaski te lislaam tax lislaam nga xam ne moo waral ñu naan tabaski lislaam mi indi tabaski moom li mu ci jublu mooy li ci jiitu mooy julli gi ñu ciy def tudd yàlla gi ak xar moomuñ ci rendi xar moomuñ ci rendi mu nekk rek loo xam ne wàccuwaay bi mu am ci wàllu lislaam du wàccuwaay bu nekk farata day wàccuwaay boo xam ne sunna la sunna suñu jox sunna farata rek sunna soo xam ne ku ko man muy góor muy jigéen man nga ko def ci anam bu koo xam ne bu ci ayib la koo xam ne du lor diine nag li tax mu jafee xam Sénégal mooy rek diine moom day laaj ñaar day laaj nga xam ko ci sa xel ba noppi xam melo wiñ koy jëfëndiko ñaar yoy dafa jafé dajalé ndax même sun sun jëm sun classe yi ba tey léegi ni ñi jëfandikoo l'islam ci jëm ci bari dañ ci xam dara rek waye li ci dess da jafé xam jafé jafé bop nak moy tax ba toujours lu melne tabaski bu ñëwé lég lég nga mëna a fàttali tabaski ci bopum tour wiñ ko wutal tuddé ko ak melo wiñ koy défé ndax ñu bari melo wo dañ ci juum tabaski ñepp deppoon nañ ci ne tabaski moom tabaski la waaye melaw yi dañ ci juum ndax bari na ñoo xam ne dañ koo jox melaw aada muy rek comme li gën a li ñu gën a sonal tey muy lu mel ne lu jëm ci euh, njaboot gi lu jëm ci sunu soxna yi ak sunu doom yi nga xam ne loolu daanaka boo seetee li ëpp ci ñuy jaaxle ci tabaski moo leen di gën a jaaxal waaye tabaski ak jaamu yàlla la te jaamu yàlla wut ndax yàlla da ko acc rek man-man kon nag nit ki moom dafa war a xam ne lislaam bokk na ci lim gën a soxla ci nit balaa sant nit dara mooy nit ki day nekk mesure am xel ndax am xel dafa nekk loo xam ne li ñuy dimbali ci doomu aadama leneen du ko dimbali ci nit ndax mboolem mbindeef yi bi leen yàgg yàlla sàkkee da leen a séddale mu jox leen xel mu mat muy teqale lu leen di jariñ ak lu leen di lor ci li gën a not waaye du ñëpp la ko may léegi looloo tax nag nit ñi war di may sens xel yi yàlla def ci ñoom ci njariñ njariñ loolu ñu koy génne moo leen di yombalal ci bu fekkee àdduna dafa ñëw jafe-jafe am nga mën a jéggi jafe-jafe jooju bu fekkoon géej la wala dex la léegi boo seetee ci mboolem àttey lislaam yi muy àtte doomu aadama yi ci ëpp ci responsabilité doomu aadama lu ci ëpp da koy ci jiital boroom xel ndax xel ni muy dimbalee nit ci bu jafe-jafe amee leneen du ko def ndax tey jii bu se boo seetee ci wàllu tabaski rek bu question sax da ngay am alal rek di ko def ndax suñu borom nee na alal moom soxlawu ko soxlawut itam ndawal waaye ab santaaneem la soxla ku ko defal kon ki nga xam ne moom ab jullit la dafa war a bàyyi dafa war a bu jamono jafee da ngay jëfandikoo sa xel te bañ a jëfandikoo sa nopp ak sa bët ndax ñun li gën a not ci ñun liñ gën a fullaal mooy lu jëm rek ci njaboot gee lekk gee xëy na yeneen yi ci mel ne moom waaye tabaski moom bu ñu koy wax ak jaamu yàlla goo xam ne dañ koy sant yàlla ndax kat sabab bi li ko waraloon mooy sunu maam Ibrahima yàlla da ko defoon muy ab xaritam bu ko jege. léegi nag sunu maam Ibrahima sunu borom doon ko seetlu ba xam xarit boobu mu ko def ndax jar na ko mérito na ko daal loolu moo waraloon mu géntuloo ko mu rendiloo ko doomam ba tax na yàlla defal ko euh, doom ji itam ba mu ko waxee doom ji nekk ab yonent dénkal ko. ba sunu borom euh, defal len tawfiq ba ren di ga mujjul am ba sunu borom jote len am xar kon lu lépp dañuy delloo rek ci yalla ci bopam tabaraka taala ci ñun jaami yalla yi li nek sun njit sun laytaay di lalu ci lepp lu lu mëna doon rek wala mu nek ci buntu ci lépp luñ bëgg dugg lolu suñu borom la motax ñi wax ne buntu yépp bu ko l'islam di jàngale da ci jital buntu gëm yalla boo sété ponk lislaam yàllaa ci jiitu boo seetee itam xaaji lislaam yi xaaji diine yi imaan a ci jiitu ndax imaan dafa nekk loo xam ne moom la suñu borom soxla ci nit ci soxla yi nekk ci jëmmi doomu aadama bi yi ci yàlla am mooy soxla si gëm-gëm bi loolu ci la nattoo woon Seydina Ibrahim boo ko seetee itam ñeneen yeneen yonent yu ñu yu defaat yonent yépp ci loolu rek leneen di natt ci gëm jëm googu nag da koy nattu ngir ñoom ñu mën a nekk ay leçon ci ñuy ñëwaat ñeneen nit ñi yeneen doomu aadama yi ñëwaat mën a jànge ci ñoom li yàlla bëgg ci jaamam ñi muy rek ku ko xam te jaamu ko xam yàlla te jaamu ko nag lu yaatoo yaatu la loo xam ne li may wax ne lépp loolu nit di def rek moo ci war a jiitu ndax yàlla moo fi nekk ak leneen li mooy àdduna te ñoom ñaar bu ci ne dañoo teqalikoo kenn ku ci ne li la tax a jub li la li la yéwén li la kenn ku ci ne daal sa soxla dafa bokkut ak su soxla yi moroom kon nit ñi nañ gën a soññ jëm ci jiital yàlla ci lépp ak lu mu mën a doon nañ ci jiital gëm yàlla ak bëgg yàlla ndax moom rek moo taxoon mu nattu Ibrahima ba gëm yàlla googu ba mu nekkee ci Ibrahima ak doom ji tax yàlla jotal leen seen bakkan kon gëm yàlla njariñ li ci nekk tax na ba yàlla dañu ko wan moo jotaal moo waral tey jii tabaski ñu dem bay rendi xar waaye kon bu boobaa kon nit la ñuy rendi kon loolu ak sant sunu boroom la moo tax may war a wax ne sunu borom nañ fexe ba ñun jaamam ñi ñuy tàmbalee lépp ci moom di delloowaat lépp ci moom comme ni ñuy waxee ne rek ne mais suuf sii day dama leen ci bind bind boo xam ne ci laa leen bind ci laa leen di delloo maanaam buñ faatoo ci la ñuy naka noonu ëllëg bu ñuy dekk ci la ñuy génnewaat kon li am solo ci jaam bu ne rek mooy na jiital suñu borom ci lépp te xam ne sunu boroom mboolem di nekk ci alquran nekk ci àdduna ak alaxira lépp rek luy tax nit dellu ci moom rek la moo tax nag euh, da ngay gis ne téere bi bi ko sëñ Tuubaa bindee lim ci njëkk a tudd mooy musulu ci seytaane lu waraloon tudd yàlla màgg lool sëñ Tuubaa jiital musulu ci seytaane foofu am nañ dégg-dégg bu ne kon doomu aadama bu ne daa war a jiital muccam ci ci ci jàmmam maanaam doomu aadama bu ne dafa war a fexe ba lii tax mu mucc mu taxaw ci te nit ku ne lii tax nga mucc bokk na ci nga jiital yàlla ci sa lépp ndax sunu borom kat dafa séddale àdduna bi ci nit ñi ci xam-xam ci alal lu ci nekk dafa am ñu ko sédde ñoo xam ne dafa am lu mu leen jox am lu mu leen xañ boo seetee ñi nga xam ne alal jaral na leen dugg avion dem ci yeneen réew yi da ngay gis julli da leen di jafe julli ca waxtu wa da leen di jafe nekk ci dëkk boo xam ne bu bu noddu jotee nga dégg ñu noddu day jafe kon alal lu ëpp ci bu yombee rek tudd yàlla day jafe ki nga xam ne alal da koo jafe itam lu ci ëpp moom ñaare li ma wax dana ko yomb moy dana nek fo xamne bu tuddu yalla jotee dana ko dégg bu jaamu yalla jotee dana ko dana ko def boo gisee nak may ci wat ñepp ci yalla moy dañuy gis ne mboolem xéti jaamu yalla yépp yalla di santane bo sété julli gi ñu doon def li ci nek lepp gennut luy delloo nit ñi ci yalla ak luy tax nit ñi tuup ci seen borom ak luy tax ñu ñaan jéggalu yalla ak yërmandeem te moo ne yeneen ñun yi lay gën a jitteel te gën a dox suñu digganteeg yàlla mooy soxlay àdduna te soxlay àdduna yooyu nag moom dañuy gis ne àdduna suñ tubaa day wax ne yàlla da koo binde muy euh, kër goo xam ne yitte joo ci faj rek yeneen yitte taxaw kon yitte ji nga xam ne moo mat yitte te mat a jiital mooy yitte woo jëm ci suñu borom tabaraka wa taala comme ni ma koy waxee rek tabaski lu ñëpp maase wutal fu tur wuñ xam la waaye melaw yi wuute nañ ci lool ndax ñëpp kenn ku ci ne xëy na na koy jëfandikoo bokkut ak na ko ñeneen ñi jëfandikoo waaye ku bëgg a jëfandikoo tabaski daan bu ci génne ne tabaski ak jaamu yàlla la boo xam ne nit ki da koy man rek def ko nit ki da koy man def ko ndax boo gisee man-man li tax ñu di ko sedd ci jaamu yàlla mooy dangay gis ne ponk lislaam yi bi ñu dajee doon juróom da ngay gis dañ ko dañ cee jiital lim yoo xam ne dañ cee mujjal ñaari lim yi nga xam ne moom ku ko munut doo ko mën a def muy koor ak ak mag kon jaamu yàlla yàlla da koy sàrt ci man-man kon nag nañ jàpp ne ku bëgg jaamu yàlla faaw ngay seet li nga man nga di ko def ci di ko jaamoo yàlla waaye li ñu munut yàlla duñu ko sant góor gu ne itam dangaa war a fexe ba sa soxna sa la yàlla jox nga jàpp ne yàlla dala koo dénk ba noppi boole la ak moom nga sàmmal ko ko ci li lim lim ko sant nga fexe ba mu ne ci moom te mooy ñun dañoo aadawoo kenn ku ci ne lu ci ëpp suñ soxna yi xam ngeen dañuy sopp seen der yi di yokk seen karaw bi di poose seen wey yi te yooyu dafa nekk yoo xam ne ku ko mënta dindi ci sa soxna boo takkaloon sa soxna or yi ci àdduna bépp jox ko xaalis bi ci àdduna bépp jox ko teraanga ci àdduna bépp yàlla amul soxla ci loolu yàlla li ñu am soxla ci sa diggante ci sa soxna mooy responsabilité bi mu na ci def loo woon ndax def nga ko ci moo tax muy jar sax sa soxna boo mënta def ci moom lu baax nga tóngu ko waaye ñun dañuy gis ne jigéen ñi ñoo ñuy sax ñoo ñuy ñoo ñuy sonal ci bu fekkee lu mel ne tabaski ñëw na mu ñu xott amul luñ xottee wala tabaski ñëw na amuñ xar ñoom ñoo ñuy sëfal di ñu tek ay choona ak fitna ak wax yo xamanteni bi manam yow wax jojja ak choona yow ya ci warona jitu ndax ñun ñi sun soxna yi xam ngeen ne jafé ne ñu ci matal julli ñu ci bari dañuy fanan ci lal yi ñu ci bari duñ nango saxal julli ñu ci bari itam duñ nangoo sàmmonteeg seen yaram bi len yalla samulo ta lolu dañ koy def ta ñun duñ ci bàyyi xel ta mo ne lolu day fi tudd ci bammel ak di dajeeg yalla ëlëk loolu la lay laaj muy lu jëm ci sa diine rek waaye jëm bi li nga xam ne daa jëm ci suñu jëm bi àdduna loolu dafa war a topp ci li jëm ci suñu diine waaye waru koo jiitu kon nag mooy delloo siwaat ne rek jiital yàlla ci lépp moo gën a euh, yey ci lu mën a doon kon nag bu may delloo bu may tuddaat mbirum xel foofu kon euh, xel day feeñ foofu ndax loolu xel moo koy xam nit ki mooy xam ci xelam ne li jiitu ci saman njaboot li ma war a njëkk euh, taxaw ci ñoom mooy jigéen ñi naa fexe ba man bala ma cee taxaw kenn faaw danga may dimbalee di julli di laab ba noppi maandu sa làmmiñ ba noppi sàmm sa tànk yooyu jar na sax nga bàndoona jigéen bi bañ koo bañ koo toppatoo ndax loo ko defal mooy li muy indi li ma doon wax rek jigéen boo ko joxoon or bi mu gën a bëgg ci àdduna jox ko jamaa jox ko itam alali àdduna teewut yàlla bu ngeen dajee ëllëg man naa sukkandiku ci loolu euh, mbugal la ci wala mu sonal la ci te moo ne loolu de nuruwut loo xam ne luñ mën a mbugale nit la waaye nag sunu borom fi muy gisee ak fi muy xoolee liy jariñ nit ki ak li koy lor dafa bokkut ak fi nit ki di xool ay njariñam ak ay loram moo tax may wax ne xel li waral lislaam àtteem yépp mu jiital ko ci mooy li ëpp ci taxawaayu kilifa ci kaw suuf mooy faaw nit ki jëfandikoo am xelam ci lan mooy ko war ci li jiitu ci ay warteefam ci digganteem ak boroomam ak ñun jaboote muy delloo siwaat ne rek nit ki taxawaay bi mu war a njëkk a taxaw mooy taxawaayu sàmm diggante sàmm bi ko war moo boroomam ak ñi ko boroomam dénk waaye jëmmi euh, ni ñu àdduna jàppe nga xam ne daanaka bu ñu xëyee dépasse la ñuy wuti ak lu ñu dundee loolu ku koy def da ngay xëy rek ba dugal la ci biir suuf si nga bàyyi ko waaye yooyu moom jeex mukk waaye lii jeex te ñu la koy laaj tam jafee dabaatal lool mooy xam yàlla ak jaamu ko ndax sëñ Tuubaa radiyallaahu taala anhu boo gisee muy wax ne ñi gën a ñi faatu ñëpp liñ gën a soxla mooy ku leen laajoon luñ gën a soxla mooy dañ leen delloo ci àdduna ñu jëf fi jëf ju baax joo xam ne buñ delloo dana leen mën a jariñ kon loolu dégg nañ ci ne sunu boroom moom lim gën a yittewoo ci ñun rek mooy ñu xam mooy kan ak place bi ñu ko war a teg muy jaamu ko kon loolu maa ngi wax ak euh, ñoo xam ne ay boroomi xel lañu te toll ci àdduna boo xam ne loolu la laaj ndox àdduna ci ñaar rek la ko yàlla tënk muy bis bu jafé ak bis bu yomb bis bu jafé ak bis bu yomb nak li li yalla soxla ci ñom moy bu la yombalé lay sa bis nga baña bew manam bu la yalla bolé ci ñi man nga baña jogg ci sa man-man di ci jaay doomu adama yi doolé parce que légui lool dafa bari nit ñi euh, ken taneetul ko ken dimbulétul ko tane li gëna nok ken dimbulétul ko koo li gëna nok te loolu dalay delo ci ci li yalla soxla won ci yow nga koy nasaxal te mooy benn yàlla boole la ci ñi mën a dimbalee nga war a dimbalee loolu la yàlla soxla bu la boolee ci mu munta dimbalee dafa bëgg loolu bañ laa tax nga jàpp ne rek yàlla da muy benn sens mooy bu la boolee itam ci ñu dimbalewut ci àdduna itam na nga xam ne dénk na la mul dénk na la jaamu yàlla dënk na la sant yàlla muy ay ay ndenkaan yoo xam ne bu ci ne moo ëpp daraja fuuf dénkaan yi muy dénk ci nit kum dénk alal rek du àdduna kon yàlla sens yi mu ubbi ci doomu aadama yi ci diggante bu àdduna jafee ak bu àdduna yombee ñaari sens la yoo xam ne yu yaatoo yaatu la kon nag nit ñi nañ delloo siwaat ci sunu borom te bañ a xool ñun sunu sunu jëmm yi ndax kenn ku ci ne sunu borom ni mu bindee sa moroom ci jikko ci melo ci wax ci lépp bokkule woo ko sa moroom kon nit ñun bu kenn gëm ne sa moroom war naa xalaate ni ngay xalaate war naa war naa mel ni ngay mel wala war naa doxale ni ngay doxale loolu moom ta nekk waaye li am solo mooy li mën a nekk nag mooy kenn ku ci ne moom yàlla lebal na la lu tax nga sédd ko sa diggante ak jaamam yi sédd ko sa diggante ak moom mi nga xam ne moom moo la bind kon nag su may wax rek lépp li ma ci jublu rek mooy toll nañ jamono joo xam ne war nañoo delloo siwaat yàlla ndax àdduna man nañu ñi nga xam ne dañoo tàmm fo buñ tolloo ci jamono ji duñ bàyyi xel ne fukki fani tabaski yu njëkk yi dañuy wax ne lépp lu ci nit def ci bàkkaar wala aw yiw buñ ko daan jàppe fukk da koy ëpp dañ koy gën a ful waaye bu fekkee lu jiitu loolu sam xel yow caaxaane ci nekkoon ak yeneen lu jëm ci jaamu yàlla bu tabaski ñëwee sax ci ngay gën a feddali say caaxaan ci ngay gën a feddali sag mooy yàlla moo tax toujours may wax ne yàlla boroom xel yi lay waxal ñu mësoor te doon ay mag ñàkk am xel moo tax yàlla topp leen dara ñun ñu mësoor te ami xel mësoor googu ak xel moom moo tax yàlla topp ñu dara waaye du sunu alal du sunu njaboot ndax kat boo seetee ñi gën a not ci ñu yàlla dimbale ci jaamu ko nekkul ñu ëpp alal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bàyyiwu fi itaas bu ñu coow ñeneen ñi nga xam ne itam yàlla da la a dénk aada sax niti aada yi nga xam ne ay yi àdduna lañ te na ci dem kenn kër kenn ci cosaan dañ ne la immeuble bee moo ko fa def waaye da gis ne rek dafa amoon jikko moo tax yonente bi sallallahu alayhi wasallam suñu borom tàgg ko ci jikko moo tax nit dooleem ji jiitu mooy jikkoom ndax jikkoy nit ki mooy ëmb alali nit ki mooy ëmb xam-xamu nit ki mooy waral suñu borom ŋàññi xam-xam bu fekkee jikko wëddu ko suñ borom di ñaan ñaan ñi alal bu fekkee itam jikko wóor ko kon ñun doomu aadama yi faaw mënta ñàkk ñu delloo si waat suñu borom te ñuy delloo si waat suñu bopp ci suñu borom tey ëmbalante jàmm tey jéggalante tey yërëmante ndax loolu lañu suñu borom sant di ko dénk sama bopp di ko dénk bopp jullit yi fi teew yépp ñu xam ne rek àdduna amul solo lu mën a doon rek day jeex yàlla rek moo am solo kenn mënut a jox sa morom lu dul ne yàlla la neex kenn mënut a xañ sa morom lu dul ne yàlla la neex yàlla jooju nag mooy saahir mooy baatin ba tax na maa ngi koy dénk sama bopp nit ñi gën a euh, bàyyi xel ne sunu borom duñ ko mën a rëcc ci àdduna duñ ko mën a rëcc ci àllaaxira ndax kat fii mu toll nii àdduna bi fii mu toll képp koo xam ne tiitoo ci ni ñuy doxee ci jikkoy nit ñi nit ñi ni ñu ñàkki kersa nit ñi ni ñu ñàkkee yërmande nit ñi ni ñu ñàkkee ruus sunu borom képp koo xam ne tiitoo ci ci jamono ji li ngay dooni moom lu lay bett lay doon li la yàlla lay bette lu lay bett lay doon ndax jamono ji fi mu ne dafa nekk jamono joo xam ne léeg-léeg ma ne am nañ nit ñoo xam ne ci ñoom laay gën a yërëm ci sama bopp ndax fi mu ne képp koo xam ne dangay xaar nit ku la laaj sa alal nga jox ko ko bu ëllëgee yow mal fépp fépp fu yàlla bëgg a joggi pour xam sag joxe du ko du ko gis ndax nit ñi ñooy ñooy ki mën a seere nit ak tabeem te nit ñooñu bu fekkee munoo am kenn koo ci mën a waat ne man naa seere sa tabe wala sa man yërmande rek bu boobaa loola day jafe nga am ko ca kanamu suñu borom tabaraka wa kon doomu aadama yi nañ bàyyi xel ne kenn ku ci ne li lay jariñ di la lor ci yow la ko yàlla jiital bu fekkee yërmande la yërmande jooju danga ci dox di ci wax di ko yéene bu fekkee njëggal la faw ngay jéggale faaw nga nga di ci dox di ko wax waaye bu fekkente ne bii ñu ngi dund diine joo xam ne aw tur la ci kaw waaye melo wi daanaka boo demee ci yeneen réew yi nga xam ne sax xëy na tuddoowuñ diine waaye ñoo yor melo yu diine yi dañu koy ëppale kon nag ñun jullit ñi nañ delloo suñu bopp ci delloo siwaat kersa yi nit ñi léegi ñeme nañ ak mooy lool jigéen ñi nangu nañoo wuññi seeni awra lool góor ñi itam nangu nañoo ñàkk yërmande lool ci seeni moroom te ñaar yooyu dañoo nekk ñaar yoo xam ne bu dañee ci àdduna rek daanaka mën nga ne àdduna amatul barke bu dañee ci dund itam mën nga ne dund amatul barke jumaa yi day néew day néew loolu ay nit léegi te marché yi di fees lool loolu lu usul la te nit ñi bàyyiwuñ ko xel te loolu nag warut moo waral toujours ngay gis koo xam ne daanaka bis bu ne mu xëy te doo tane ko xëy xam nga boo fekkee da ngay teel a xëy jëm ci lu yéwénal sa àdduna te mënoo cee raw kenn loolu jërul nga jiital sa adduna ci sa àllaaxira ndax àdduna boo ko amee da koy ñàkk boo ko ñàkkee itam maanaam ñàkk fi ba pare waaye yàlla nag mooy koo xam ne moom mënoo koo ñàkk te bu la rawee mënoo koo amaat moo tax nit ñi nañ delloo siwaat seen bopp ci sunu borom xam ne lépp ñu ngi tàmbalee ci yàlla lépp ñu ngi mujj ci yàlla rek tabaraka wa taala di ko fàttali ñëpp di wax ne ngi jégalu ci kàddu yi te xam ne jamono bis bii ñu toll moom day bis boo xam ne yàlla rek moo ko moomal boppam dañ ko ci war a di def nag julli juróom yi buñ ci julli rek buñ salmalee wax ci ñetti allahu akbar ndax li ma doon wax rek ne ku yokkul rek dangay ngay wàññi ku defut lu baax dangay def sofaan ba tax na nit ñi nañ bàyyi xel loolu nit du nax boppam te mooy jàpp ne ab jullit nga te doo def lu la ko taxa doo ko wax te loolu jullit ñi dañ koy bàyyi xel delloo si waat di jéggalante di yërëmante di suturaalante ndax kenn ku ci ne la nëbbu ci yow moom la la nit ñi respecté waaye bu fekkoon ne yàlla génne woon na sa melo yépp rek kon xëy na nit ñi duñ la respecté loolu nag day wane ne kon nit suturaam rek moo am solo ci moom sutura soosu nag moom la mag ñi daan dunde ñoom loolu taxoon na ba daanaka bu njëkk nit daan dëkk sox ci ferub sàkket te sa xel lu dem ci ne yaa ngi ci ferub sàkket ndax mag ñi sutura lañ daan dund dañoo jàppoon ne rek ñoom yàlla may na leen liy bëgg lépp waaye ñun nag dañuy dëkk ci itaas ba noppi di jooy jàpp ne amuñu dara loolu nag day tekki ne dañoo jàpp ne sutura am na solo ci nit dañoo jàpp ne itam dañuy wax ab sag am na solo ci nit te ñaar yooyu dafa am solo ñu ngi koy dénk suñu bopp di dénk ñëpp ñu jéggulu ñëpp di wax ne képp koo xam ne teew nga fi rek suñu kilifa yi nga xam ne kilifa yi diine lañ ñu ngi leen di jox seen wàccuwaay bu baax a baax kilifa yi fi teew teewal fi état bi ki nga xam ne moom la fi yàlla jox dëkk bi muy monsieur le maire Adama Diallo moom it gis nañ ne ren jii mu yónnee ñu xar moo xam ne ci jëmmi alali boppam la ko def kon loolu nag pour yéen ñëpp a tax nag mu def ko ndax man bu doon sama jëmm dong man soxlawuma xaram duma ko fa laaj ba ma noppee doon ilimaan soxlawuma xaral man ilimaan ji rek moo tax may may wax kon man du damaa am jot di wax du damaa am temps di di di def mooy dama yàlla dafa maa def rek man nekk fii di jiite rek waaye lenn lu jëm ci luy tiitaru wala luy ndamu wala luy xeet nit loolu man fa sum boolewuma ko ci sama àdduna lépp lu ma yàlla sant rek fa mu tàmbalee laa koy tàmbalee fa mu yem fa laa koy yem ku yàlla jox euh, sagub àdduna ak darajey àdduna nangul naa la ko te yéene naa la ko ku yàlla jox darajey àllaaxira itam nangul naa la ko te yéene naa la ko loolu mooy fi bépp jullit bu nekk ci kaw suuf waaye day am solo nit ki léeg-léeg ngay wax fi nga taxaw yow waaye man moom képp koo xam ne bëgg na maa xam fii ba ma may sàngoo suuf man yàlla laay liggéeyal ci kaw suuf leneen lu dul yàlla du ma ci dox loolu képp ku may jàpp bay boo nga jàpp ma ci loolu waaye képp ku may bàyyi boo nga xam ne duñ mos a ànd man yàlla rek moo ma bàyyi ci kaw suuf ndax man bi may ñëw fii loolu laa signé woon dama fee ñëw ngir liggéeyal yàlla waaye bu fekkoon ne alal la man ba fa ma fa ma jóge dama faa bàyyi woon la ma neex am lépp bàyyi ko fa kon fii dama fii ñëw ngir liggéeyal daal lool nag kenn ku ci ne ci yéen dama koo séq ak moom ndax fii bërëb bi amul kenn koo xam ne ñaar fukki at yu manque benn yi ma fi am ku ma ci mos a taxawal ne la lebal ma fukki junne amul amu fi loolu nag lu may jëmmale ne man li ma fi indi yàlla la ku may jàpp tamit yàlla mooy tax ma jàpp la ku may bàyyi tamit ci yàlla lay tax ma bàyyi la tey danaa am ñemeeg ñu layoo ko ëllëg ndax man du ma bàyyi nit ci bakkan duma jàpp nit ci bakkan ku may jàpp yàlla mooy tax ma jàppalu bu may bàyyi yàlla mooy tax mu tànn comme ni ngeen ko amee yéen ñëpp ndax kenn ku ne am na engagement boppam kenn ku ne am na lu muy jàpp nit am na lu muy bàyyi ma ne noonu laa ci am lu may jàpp nit te mooy yàlla di am lu may bàyyi nit te yàlla foofu laa nekk tey foofu laa nekk ëllëg foofu la yàlla sant ñu nekk fa wa ahbibil mumina lil imaani wal tubxidal kaafira lil kufraan loolu lañ sëñ Tuubaa radiyallahu taala anhu sant lu may waslu rek àq la di ko gën a laat ci nit ñi ngir ñu bañ dund ak man sikk sàkk ndax fii tey ren laa fii am sama fukki at ak juróom-ñeent fukki at ak juróom-ñeent nag foo foo ko am noo fa mel dootu noo xas mel dootu soppeeku kon nit ñi nañ ma comprendre ci wet googu bu baax a baax xam ne man ku ma sori itam doonul ne dama laa xeeb doonul ne itam dama laa nëwut doonul ne itam dama laa bañ déedéet da di kenn ku ci ne yàlla dafa am nu mu la bindee noo xam ne noonu ngay doxe man lu ma sori sori nit teewul li ma leen ëmbal ci yërmande ci itam lépp loo xam ne lu ma leen war a ëmbal li ci lu baax dama leen koy ëmbal kon nag loolu dañuy ñaan yàlla ñu koy def ci suñu biir ñu koy ëmbalante waaw di gën a delloo delloosiwaat comme li ma doon wax dimbalante dimbalante lu am solo la waaye bu fekkente ne bi kenn ku ci ne da nga war a dimbalee sa morom wala la nga war a yërëme sa morom defoo ko loolu du am benn njariñ benn njariñ kenn ku ci ne na xam ne si responsabilité rek moo la bàyyi ci kaw suuf waaye du ay topp bànneex topp seytaane topp àdduna loolu am solo moom laa doon jàngale ci kori gi ne leen ñeenti noon yi doomu aadama bu ne war a xam rawatina ab jullit mooy Sëñ Tuubaa da ko jàngale muy bakkan seytaane bànneex àdduna ñooñu ñooy ay noon waaye doomu adama du noonu doomu adama moom bu fekkee daa yor jikko yooyu yi ma la wax ci seytaane ci bànneex ci bakkan yooyu rek lay taxaw taxawaayu noonu waaye képp koo xamante ni bii génn nga ci yooyu mbokk nga moo waral innamal mu'minuna ixwatun kon wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabbil alamin waa esprit Gossas TV ki nga xamante ne nii baaxul lu baax ci Gossas mu wane jeune talent yi mu wane ndaanaan yi mu wane icône yi mu wane moo tax macha allah télé baa ngi bomb mi ngi toj damaa focus leen ci bi te ngeen jàppale télé bi ndax eh esprit Gossas la wax esprit moo ngi doxal moo ngi toj defal lu la man maa ngi ne pacak ci biir esprit Gossas